ak gën gën ay Toustane jàppante bi la bëgg. mooy buur Toustane jël na ko daan na ko. waaye attention ñoom ñaar xeex. la ilaha illallah fii laa Amen. ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax mbokk yi tey nag ñoo ngi fii géejewaay ki ñu dalal xam ngeen ko muy Ndiaga doole di champion boo xamante bi ni confirmé na ci lutte avec frappe am ci ay victoire yu bëree bëri am ci ay défaites yu néew mu dugg ci kalaafu Gaston production nag première journée ba moo wara na bëri ak Doudou saane jaam ak pexe yàlla ak dogalam mu am plaisir dugal médical CNG bi nangul ko ko mu dem ba wér nag dugal certificat de guérison loolu moo ko may mu war a bëreeg Boy Jaxaaw le 28 avril ginnaaw bu ñu naanee ndox ba am deux semaines tey nag ñu fekk si ko fii ci kafe gi nuyu ko rek bàyyi ko mu ne mbokk internet di ñu jublu ci liggéey bi champion. waaw maa ngi lay fay moo daan tax ginnaaw bañ sant yàlla julli seen bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëriñ Aliou Maana Ndiaye suñu papa ak mboolem ña fa tëdd ñëpp dina yàlla xaaral leen àjjana bu baax a baax a baax ak mboolem waajur ña fa tëdd ak suñu raq yeeg suñu yóbbaay suñu mag yi ñu jiitu barsaq yëpp. di leen ko ñaanal si weeru koor gi ñoom ñëpp yàlla xaaral leen àjjana te yéexee ñu waaw di nuyu nag sama waa Serigne baax baax Serigne Aliou Maana Ndiaye rawatina waa Ngumba Ngewul di ñaanal yàlla Serif ba xalifa bi da ko ñaanal yàlla yan bi ayof lool mu yàgg fi lool te wër ak raqam ya fa nekk Baye Saa ak Xadara meek ak sama jarbaadu Serif yi fa nekk yëpp Serif Aya Cheikh Sadbu Taalib ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar nañ jox seen waaj waaj si waaju koor gi ndax ñu ngi waaj nimsaan bi quoi. macha allah foo toll ci sa diggante ak Boy Diakhao. waaw si kawam ndax damaa continuer rek ndax mosuma bàyyi quoi. voilà ndax instant yi ku ne si kalaaf moom mënoo waaj benn combat. ñetti combat bi la ñuy waaj comme li ñu waxoon rek décision bi nga xamante ne moom lañ ci jëloon si commencement ba. décision boobu la ñuy nekk ba tey foofu la ñuy nekk. te loolu moom moo nekk suñu ambition loolu moo nekk suñu xel. parewuñ benn combat ñetti combat la ñuy préparé rapport ak ki ngay bëreel nag mu jóge ci defet nga xam ne buy ñëwaat moom teg fa jeexal lay andi. waaw moo tax combat boobu keroog nee naa ko signature ba kombaa bi moo gën a métti si combat ndax bëri ku jógee si defet day métti. waaw mais da siy delluwaat rek. ndax dafay ndax dafay fekk gën a soxla ndax ku doon waaj combat ba combat bi yàqu mu ñëwaat indiwaat leneen kooku xam nga ne kooku mooy gën a soxla fuuf ko koo xamante ne daa jógee si defet. mu metti lool. waaw mais kooku xam nga mu delluwaat si defet moo gën a yomb bu duggaat si victoire. barke yonent bi noo dama ko xam rek jéego jaxaw moom foofu amu fa sens quoi. bi nga naan amu fa sens man gos droite la man gos droite la. gauche bi ñim dal ñëpp. waaw gauche bi ñim dal man. na ma man de dinaa ko dóor gauche ak droite. ay koy Saalum de. Baye Mandione kooku sama dank fanaan na lii xajul ci kawam de. yoruma loxo xale de ay punkal laa sa koor yi. barke yonent bi ay pokalin. billahi ay pokale laa yor ay tonn billaahi wallaahi wa taala dama si mooy kenn ñaanu ma si kenn lenn lépp lu ma war barke yonent yàlla bi si kalaaf bi dama koy def pour ma am ndam lépp loo xam dama ko war a indi dama ko indi toog ma fii di xalaat lenn si kalaaf bi entraînement moo koy def ak teel a tëdd ak def li nga war def maa ngi ci ba affaire bi commencé ba tey ndax man maa jël sama décision bopp sama décision ferme am ay coach yu mucc ayib yoo xamante ne ñu ngi may jàppale si entraînement yi dama teg si côté yaa may di si côté boxe côté contact côté musculation yooyu yëpp am na ay coach yoo xamante ne ñu ngi may jàppale bu baax a baax di ma teg si code kon nag instant yi aw ma droit def benn heure damaa a ñëw confirmer. ok par rapport ak koor gi ñaata ñaata séance nay def gi deux séances rek laay def. deux ñun cinq heures dañuy dem salle musculation. waaw bu ñu dogoo dañuy dem contact tey bu subaa bu ñu dogoo dem dinañ bu beneen subaa bu ñu dogoo dem saal boxe mais instant bi cinq heures ma fu cinq heures jotee rek dem nañ salle musculation. def ay flexion poids def musculation yi yem buñ dogoo nag ba naan dox tey buñ demee contact bu subaa buñ ñëwee buñ dogoo dem dinya beneen jour buñ ñëwee buñ dogoo dem salle boxe. mais mais koor gi ak entraînement yi nan lay demee. waaw non koor gi métti. day fekk nga faible de wala. non doo faible xam nga mooy tamit ndakaaru koor amu fi quoi. waaw ndakaar moom wax dëgg yàlla ndakaar koor amu fi ndakaar mën ngaa woor sax di xëy di dal ba ngoon jot doo ko yëg ndax climat bi fii koor amu fi mais par rapport boo génnee si àll bi da ngay xamante ne ñi si àll bi foofu boo fa wooree benn fan da ngay. Touba voilà mu ngi noonu quoi xam nga temps yii passé Touba 42 dafa métti quoi. moo tax Dakar koor amu fi fii da ngay wóor suba ba ngoon jot doo gis jant. non fii moom wax dëgg yàlla koor amu fi koor gi tax ñu naan wax koor. fii liir sax mun nañoo wóor liir yi soog a juddu. wër na yàlla climat bi ni mu demee kenn du ko yëg boo xiifee doo ko yëg boo kiiwee doo ko yëg rawatina nag boo wooree surtout gis nga fii ambiance bi ñun fii nii lañ koy dundee. Mhm. buñ toogee daanaka 5 heures buñ jullee 5 ba pare rek yaa may dégg. bu ñu jugee salle musculation si Kaffrine la ñuy ñëw fii ndax corniche moom suñu corniche la quoi fii moom ñoo ko sanc waaw fii la ñuy ñëw ak booy nii di joxe ndogu yi loolu moom du tey quoi dañ koo yàgg def daa nekk loo xamante ne moom fii suñu fièvre la quoi. macha allah mhm. mais waa ji eh, di nga xeex moom est ce que ngaa xeex moom ku mas a xeex moom na la nga daan. moom moo la gën a xamante ne du xeex day raak raak lay def ma ko xeex <laughs> yow xam nga ne sama combat yëpp non sama combat yëpp ay gitaŋaas la. mais woo nga naar de. non dégguloo ma de man bëri ma war a bëral yëpp ku ñëw xalaat jàpp damay ñëw bëreeg yow da ngay nax sa bopp damay ñëw raag ak yow ba dugg boîte vocale lamb ji il faut gars yi dem ardo di ñëw de ardo si lool. non dara lamb bëre dóor la ñu wax mais tamit yow amul amul lu yomb wa ñëw rek salaamaaleykum jàppante dem ni kën a naxante amu fi dañ ko teg si yoon ki ci war a lekk sama avance war a bëreeg man billaahi da ngay xeex ba pare soog a bëre. bu bëggul xeex ñëw a bëre nag. Modou ma ko koy daan loolu du problème moo booy jaxaw xeexul noo koy duma. bu xeexul nga xeex man bu xeexul ma xeex bu xeexee ma xeex. ma sa xeexal duma na la nag. waaw léegi nag tey jii nag bu ñu xeexee bii dinaa ko duma naa ko daan loolu moom xalaat ñàkk la quoi man booy jaxaw moom comme li ma waxoon rek ndox mu seet la dama si jiitoo ubbeeku si rek neexuma nag moom laa bëggoon mujjee mais tamit suñ borom moo dogal loolu. waaw ndox mu seet. minimiser wuñ la da ngaa seet da ngaa ñëw si kalaaf mel ni xar yor loolu amu fi. mbër ngemb ngay def daanaka silib ngay sol say doom say jarbaat say sët ñëpp di la xool barki yonent yàlla làmb ji amul ay yarok yooyu teg ko neexee buñ liggéeyee li ñuy liggéey bar buñ paree ñun ñëpp dañuy joxante kër ñëpp a yaru ñëpp a am yar ñëpp si kër lañ jógee mais làmb ji yi da leen ko da leen yëngal affaire yi teg affaire yi di jaay affaire yi yarook ay xaru yar amu fi. mais dafa yaru. waaye fii ñëpp a yaru waaye sa waaye fii ku réew barki leeru alxuraan ñun dañoo jàng suñu papa dañoo jàngal jàngal ñu école jàngal ñu arab jàng daara jàng lépp barke yéen ci yàlla yu réew ñu. suy gars yi bu ñu gisee si mbedd mi ñuy dox comme xaru yor la ñuy def mais ki nga làmb ji boo ñëwee làmb amul affaire ay yarook affaire yooyu amu fii ndax déguisement bi moo xajam. ngemb daanaka silib la dañ waxante dëgg. mais moom comme comme ndox mu sedd la euh, garga de lu mu doon. garga de neewoon naa ko moom mooy ndoxu kaane gi. ndax xam nga waaw xam nga moom mooy loolu quoi. garga moom gars yi bàyyiwuñ ko xel. waaw mais champion la ndaanaan la ñun dañ ko koy nangul quoi ndax ñun moom ñu ngi jël suñuy mesure suñu diggante moom ndax xam ne dañuy laaleeg moom ko quoi xalaatuñ si dara mais daal bu soobee yàlla moom bis bu ñu dajee la mu war a jël dana ko jël ko waa dana jël wàllam si natt bi quoi affaire natt la kenn ko ne la nga war a teggee danaa la ko teggil bu soobee yàlla. ok Doudou Sané doon moom. Doudou Sané ne woon naa ko yaay xaw ndox xorom bi. waaw mais mooy loolu mais ñun moom yàgg nañoo naan ndoxu géej quoi. Ah. loolu moom du suñ problème quoi. moo tax yow ñu ñu ñu nga am Boy Jaxaw ba pare sonal Doudou Sané quoi règlement de compte la wala lan la wala seen bëre bu tëba mu gagné la par attaque trois avertissement loolu nga bëgg a lijjanti. non gagné mu trois avertissement sax benn avertissement te arbitre ñoo ma sàcc waaw ña ne woon foofu yëpp xam nañu arbitre dañu maa sàcc ndax xam luy problème bi mënoo di bëre ak nit mu nengañ la quatre-vingt-dix minutes moom day nengañ arbitre bi naa ko dindil sa bopp bi wax na ko lu ma ñetti yoon te arbitre bu la waxee benn dindil ñaareel avertissement la war a nekk n'est-ce pas. mais topp benn mbër mooy nekkañ nga naa ko dindi sa boobu dindi sa boobu kii daa war a dindi sa boobu wax nga ko lu mot cinq fois te boo si aanee combat boobu da gis te boobu instant yi dama meroon rek mais su ma kontaagee ñaari fan duut saane su ma ko jàppee dama koy yéen a dóor ko suuf bu bëree dama koy daan billaahi bu xeex ma duma ko contact contact ñaari fan rek laa wax de billaahi wallaahi wa taala maa ba may ñëw dégguloo ma de maanaam lamb yooyu dama meroon ngemb rek ñëwoon toog affaire dëgg ma dem uti xaalis simple bi comme na ma ko jàppe woon mais Doudou Sané su ma préparé ñaari fan fu mu taxaw dama ko fay fekk dama ko fay jëlee maa ko mun maa ko ëpp doole maa ko non maa ko laar ci nag billaahi wallaahi wa taala xalaatu ma ko sax non Doudou Sané xalaatu ma ko sax man kooku maanaam sa sama digganteeg moom bëggatu ma sax ay wax xam nga laa soxla arbitre suuf la génn suñu diggante quoi ma appliqué def li ma war def woon gars yi li ma leen doon wax mooy loolu quoi wër na yàlla. 9 points ak 6 points. mais xam nga problème mooy tamit balaa ngaa yegg final il faut nga jaar si benn parcours boo xamante ne mënus ñàkk loolu day am rek mais fi mu toll nii ñun suñu bët jégg na sax ay final xam nga ne poulu néewee il faut ñu am si. mais léegi ñi doon wax na da ngaa daw Doudou Sané nag. non mosuma daw mosuma daw xam nga suñu borom ak ndogalam kenn mënus dara kenn ñaanu yàlla entraîné di blessé mais dafa nekk blessé rek entraînement ñoo ànd kenn xamul fu mu lay dalee keroog bal perdu boobu noonu ba ma koy jël xaw ma fu mu ma dalee. barke yonent yàlla bi. loolu ñaanu ma yàlla toog di préparer cinq mois di ko yàq si benn fan man kenn xamee ma loolu. Hmm. loolu musuma dal mooy soog a dal. mais su ma dalee tamit dama koy nangu rek xam ne dal na ma. samay kilifa taxaw ne du ma fi bëre lan laa si mën dafay xuloo ak ñoom wala damay xeex ak ñoom. da nga leen koy nangu rek te xam ne yow mi préparé toog ay cinq mois di préparé benn affaire mu des semaine suñ borom ñëw indee neneen da nga koy nangu rek. mais ñun am nañ gëm-gëm gi am nañ yàqin gi. kalaaf yi moom. Hmm. liñ soxla liñ koy jël bu soobee yàlla. ok léegi dañ ko dañ ko defaat mu gën a neex ci yéen waa Guédiawaye nga ciy bëree sa rakk bébé guy gi di ci bëre sa frère Alioune Seye di ci bëre mu mel ni les jours soosu di ngeen génn en masse. non bu soobee yàlla noonu lay deme à passage Alioune Seye dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam si kaw Koons bébé guy suñu frère la ñooy ànd entraînement chaque jour dañ koy ñaanal yàlla tamit yàlla may ko ndam si kaw Mamour Fass même Fadam 2 Bada. dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko moom day bëri le premier ne ñoo nekk géejawaay dañ leen di ñaanal yàlla suñu borom may leen ndam quoi waaw mais ñun ñu ngi waaj ñu ngi si kalaaf bi ñu ngi waaj amuñ demi mesure boo xamante ne dañuy kii kenn dañuy entre ensemble def li ñu war a def bu soobee yàlla buñ demee ku fa nooy bopp daal wala nga nekk foofu di seral sa ndam mun na des mais ñun moom dañuy jël liñ moom. ok lan ngay wax waa waaw waa Gaston moom wax dëgg yàlla dañuy kontaan si yéen rek waaw di ziaraat ku mel ni makan di ko jox wàcc waayam di ko wax di ko wax tamit baal ñu àq si koor gi di la baalu àq di ko baalu àq fin bi gars yi xam teg nañ la coono mbër yi rek mooy loolu waaw mais di la wax xëcc ba dagul dikk waa liñ naan oto bi si kanam la ñuy kor na waaw dañ lay ñaanal yàlla rek suñ borom musal leen si cet waaw waaw suñ borom gën la ko waa ndax gis nañ ni ngay jàppale sport bi bëgg nga sport bëgg nga jeunesse bi yaa ngi jàppale yaa ngi gestu si côté bépp quoi wax dëgg yàlla loolu amuñ tafay te loolu yombu ci promoteur quoi te loolu da nga nekk tamit comme modeste quoi téléphone ku la woo téléphone da lay jot par rapport ay promoteurs yoo xamante ne ñun da am na promoteurs yooyu ñëw dëkkoon da nga leen di woo téléphone pour nga jot seen problème la mais wax dëgg yàlla bañ seqee li ñu relation ba tey ku la woo téléphone da lay jot te yaa ngi déglu gars yi seen xalaat yaa ngi déglu gars yaa ngi seq ak gars ubbil nga gars yi say la doomu aadama loolu la quoi nit nit loolu rek loolu rek la mun a doyee moroomu doomu aadamam quoi tey jii yow mën mën nga nekk promoteur bu mag nga xamante ne yow bu la neexee sa xaalis ngay sàmm mais teewul da nga am ay relation ak doomu aadama bi nga xam moom ngay jëflanteel tey boo génnee sa xalaat muy génnee sa xalaat si côté bi rek affaire day gën a loo xamante ne day am ampleur day nekk lu gën a baax te makan gis na si moom loolu quoi dañ koy ñaanal yàlla yàlla lafal ko cat rek li mu sumb quoi mu génn seeg jàmm ak salaam quoi. macha ma bàyyi la tàggoo Ndiaga waaw di nuyuwaat ku mel ni sama waa corniche bi gis nga fii Baye Fall yi sama dëkk la quoi. gis nga photo yee ngay gis gars yi di takk fee yu bëri mooy loolu xam nga tey mooy loolu combat bee gars yi dañu ko waajoon en masse. sama blessure bi nag am na boo yoo xamante ne ba nii duñu ma ko baal barki yonent yàlla ndax li ñu waajoon combat bi maag yi dañ ko waajoon ak doole am na boo yoo xamante ne ba nii su ma leen rombee. su ma waxee ak ñoom sax ne mbër rek ñoo tooñ dañoo waaj li musul def dañ ko def nangam sàngam bu sa combat bi. mais dañuy dabu loolu du problème instant yi bu ñu génnee si koor gi dinañ commencé waat affaire yi commencé waat programme yi nga xamante ne moom la ñuy nekk si wàccaa bi comme booy gën a nekkaat si liggéey bi bu soobee la gën a waaj di woowaat autorité yi nga xamante ne ñoo ne géejawaay nañ jàppale seen doomu dëkk nga xamante ne géejawaay ñun amuñ lu dul ñoom mais man yàlla damaa séddëk koo xamante ne mooy sama lépp si géejawaay moom la ñuy wax Mourtala Seck mooy borom coordonnateur ñoo lànk quoi kooku moom maa moom démb ak barki démb la ak tey du amul dara loo xamante da koy def bàyyi ma di woo suñu grand boo xamante ne gay Ndiaye suñu frère suñu lépp mu ngi ñuy jàppale ci côté bépp di nuyu suñu papa Lirou jaañ nag waa comme que moom géejewaay gi moom tey jii jàmm ak salaam rek la fi kii di woo suñu grand papa Mama Fall waaw di woo ku mel ni tamit la Diop dañ koy woo si komba bi tamit waa per Diaw sama papa la kooku instant sama combat bu dee semaine dernier conseil yi lépp moo ma koy jox damay soot sama daal dem ba këram ndax moom géejewaay moo ko ñor bëggul lu dul tey jii mbaru waay ak boo munti dem rek nga dem tey loo xamante ne nga dem indi ndam li moom loolu rek la lay ñaanal di jaaraat sama waa koñ nag bu baax a baax aw ma seen fay mais ku si mel ni suñu garaam may sant yàlla boutique kooku dañuy jàppale suñu combat amuñu fayam dañ koy waa ci combat bu baax a baax xaarim Diagne mu yaasin Dukure dama koy woo sama combat yàgg na maa jàppale démb ak barki démb di wax taalibe yëpp nag ñu ngi waaj ñun Nimzaat ñu fa la ñuy korité waaw ñun moom léegi ñu dem ndax dama ne woon koor bu ñu wooree 15 jours rek daanaka man damay dem ndax désert gi foofu noonu fa laay dem làqat foofu ndax désert gi foofu noonu beneen affaire la mm. waaw su ma demee Nimsaat ba ñëw moom su ma ñëwee moom su ma nee cëpp fii mm. oh <laughs> loolu beneen monde la barke yonent yàlla foofu moom sa waay su ma yemee moom bu ñëwaat moom eh, <laughs> réew mi dana yëngu moom leneen la ñuy wax di ziar nag waa koñ bi bàyyiwuma kenn mag ndaw paa ak meer di baaluwaat ñëpp ak si koor gi ñu nekk di baal ñëpp àq di woo tamit sama benn booy boo xamante ne commerçant la mooy waa basum famille ñoom ñooy jaay tisi marché zeng samay doomu nday lañ lépp ak ñoom jaw ko ko jaw nga xamante ne koko pin pin moom moo ko fi indi jaw dañ koy ziar bu baax di ko waaj waa waayam ndax moom am na lu ñu dig si combat bii nga xamante ne moom la waajal ak majaw frère am ak taala jaw gara commerçant di nuyu waa Touba Kane ñëpp nag Touba Kane bàyyiwuñ kenn rawatina xalifa ba sëñ Fallou Kane dañ koy ziar di ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax a baax baax a baax sëñ Ibra Kane suñu xarit sëñ Mamor bàyyiwuñ kenn ak njabootu Leykan gi sëñ Cheikhouna Kane ñooñ dañ leen ziar lañ jox seen wàcc waay baax a baax di ñaanal yaa yàlla waa Nder Naar tamit suñ xalifa ba sëñ Sidi Guyet borom borom borom Nder Naar sëñ Mouhamed Jullit dañ koy ziar da ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax a baax di nuyu doomam sëñ Assane Kunta di ziar waa Ndiassane nga xamante ne ñun fa la bokk suñ côté papa di ziar njabootu kunta kunta ëxlu kunta gi yëpp ñu leen di ziar leen jox seen waajowaay bu baax a baax di ñaanal yàlla tamit suñu daayira bi ah suñ suñu waa daayira yi dama leen di woo quoi daayira bi nga xamante ne mooy daayira parcelle fa lañ bokk ñuy daayira dëgg tabala ñun ku ñu xool xam ñi ñun ay taalibe lañ dëgg tabala dañ see juddu dañ see màgg dañ see yaru defuñ ko métier nag mais daayira moo ñuy boole ak moom di ziaraat suñu waay waa daara parcelle waa daara géewaay waa daara Pikine waa daara yëpp nga xamante ne yëpp ngi taxaw di woot laa ilaaha illallaah rek ñu ngi lay tàllal da jox sa wàcc waay bu baax a baax di waaj Nimza bi nag taalibe yëpp nañ jox rendez-vous Rosso Rosso Mauritanie si man ma di pèlerinage bi ñuy def foofu ñetti fan di togg di jox gaa ñuy lekk rek palara yi kenn du sonn barke yonent yàlla bi macha allah mi ngi noonu njaga doole lan dalaloon mbokk yi di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production xalil jërëjëf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 waaye attention ñoom ñaar xeex bi. la ilaha illallah fii laa si daan daan bëree. ak mën a bëree. boo yara caatu yoo. makkat ne di ñëw taxaw ànd ak Abdullah. waaye yëmul foofu de. attention